ci ndigalam ak ñaanam ak ci teewaayam ak digleem ci lañ fi teew mu yàgg fi loolu te ànd ndax liggéey bi kat mooy borom liggéey bi ndax moo fi nekk Serigne Touba lu ñu ciy def itam ci ndigalam lañ koy defee sañu cee yëkkati bant te amul ci liggéey ci moom fu mu ñu ci yem looy falañ ci yem lépp luñ ci war a def it lay jiitu mooy dem laaji ko ndigal ba mu jox ñu ndigal ñu doon waxe noonu kon ci turam lañ leen di ñëw maag sama bokk yu tedd yi ma àndal nga xam ne daanaka njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñi ci ëpp ñëw nañu ndax xam ngeen ne ñëpp ay kilifa yu mag lañ kenn amu ci jot ku ci yaa ngi teewal kër yu mag yoo xam ne jëmmal diggante Sëriñ Tuubaa ak mbokka ñoom àndoon ak magitaal bi ma àndoon loolu rek tax ñëw fii nag kenn amu ci jot ku ci ne boo yebaloon ndaw wu doon kon cant gi sax jëru ko ndax seen bopp lañ koy defal ndax seen jëfa waaye kon Cheikh Mamadou Mountakha ñu ngi yeesal cantam ak ngërëmam ci yéen ñi xam ne liggéey bi na ngeen ko daan defee ci kilifaam yoo ko jëkk wétli ngeen ko ci gunge ngeen ko ci ànd ngeen moom lépp kon ñu ngi na seen maam yu teddee àndewoo Sëriñ te yéen itam ngeen ànde moom noonu yàlla ngeen ci daje payu yàlla day ca ngërëmu Sëriñ Tuubaa di nuyu mboolem kilifa yi fi teew ci wàllu adduna di ko teg ci loxol gouverneur de la région di Diourbel nga xam ne bi mu fi dóoru ñëw di ku baax di taalibe yàlla defal ko tawfeex ñu andi ko fii waaye diggante bi li muy gàtt gàtt amagu fi lu ëpp ñaari ay bis waaye dox na fi jéego yu am solo ndax bi àndeek waa assainissement ndax amoon nañ jafe-jafe ma boole woon nag sëñ Abdul Ahad ñu ànd di wër ndax fu ñu yóbbu ndoxum Tuubaa mi doonoon na jafe-jafe danaa ci dellusiwaat sax waaye mu jafe lool te Daaru Rahmaan xam ngeen ne bassin bu njëkk bi ak foofu di fa lañ ko def te condition yi metti na ndax ndox xam ngeen ne fu mu bari yoon ya du baax dana bari it yuy lore day yàq environnement kon lool itam danaa ci leer laa lu gàtt ndax waxoon naa ko directeur assainissement soññ ko ne ko nañ fexe ba gën a sécuriser foofu fexe ba it liggéey bi di amal njëriñ nit ñi ndax ndox mu toll noonu mën nañ ko utiliser ci mbay comme ni ko réew tubaab yi defee biñ ci amee jafe-jafe nag yàlla def ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yéeg ne fi ñuy wax kër kàbbu ñoom bi ñu xoolee foofu wax na ne mooy fi gën a baax waaye jafe-jafe rek mooy nu ñu nu ñu mën fexe ba jot ci fekk solution bu ne def nañ ko maa gouverneur ak Abdou Lahad Ka ñoo bokk toog ak service yëpp ñoo ko ko sante bañ xool ba gis na kër kàbbu lañ gis soo xam ne lañ bëgg lépp attanaw te mooy fa gën ci ñoom bañ ko yëgalee sëriñ bi nag sëriñ bi jokkoo sëriñ Ahmadou Mokhtar rakam wax ko ko ndax ci kilifteefam la nekk sëriñ Ahmad ne ko jërutoon nga di ma ko yëgal ndax yaa ma yilif yilif suuf sa kon sëriñ bi ci boppam moom ma yónniwaat ci moom ne ma naa ko ko santal gërëmal ko ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne Sëriñ Ahmad defal na ko kon di can nuyu gouverneur ci wet boobu di nuyu préfet ak sous préfet bu ndaam ci seen taxawaay ci li weesu ci liggéey bi mboolem chef de service yi fi teew yëpp nag baywuma kenn ba ci ñu yor wàllu santé wàllu sécurité police ak gendarmerie ak sapeur pompier bàyyiwuñ kenn xam naa Sëriñ Ousmane buy lim dana ci gën a dugg di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñoo koy jàll ba ñëpp mën koo agsi kon di sant yàlla bu baax rek ci bi ñu suñu borom mayee ak fekk ak tal bañ teewaat fii ci waxtu yi di waajalaat màggal Touba ndax xam ngeen ne ñaari at yi yëpp màggal nañ ko ni ko Serigne Touba digle waaye màggal nañ ko ci condition yi jafe woon ci nit ñi positifum nit ñi ak seenu dogu ak seenu jaayante ak seenu wane na Sëñ Tuubaa wéye ndigalu Sëñ Tuubaa moo leen gën a seen bakkan moo tax ñu màggal kon loolu liñ ci war njëkk jànge te war ko ci gën a dërloo mooy ndigal lore ndax boobu képp ku doon jëfandikoo sam xel la nga doon wax mooy màggat gi nañ ko annulé waaye loolu suñ bakkan jëraluñu ko ñàkk way ndigalu suñ tubaa suñ bakkan jëraluñu ko kon nag santaat yàlla bu baax ndax fii lañ daa toog di ko fi waxtaane muy lu jafe màggal nañ ko ñaari mu jàll jàmm màggal guñ ci agsi ci kattanu yàlla mii def di dindi ak ni mu faree suñ Tuubaa màggal bu ci agsi buñ ci àggee lépp wàcce màggal gi jàlle mu yéegaat kon loolu wane na ne kum dalul xel sa digg ak sëñ Tuubaa yaakaar naa sama xel dootu daal di bokk kon ñuy ñaan rek màggal gi ñu dugg ñu dugg ci te yëf yi bañ a yëkkati ko waat ndax jàngoor moom suñu borom moo indi mooy xam la tax mu du ko def kon yàlla na ko gën a jeexal ba ñëpp gënee ci jàmm di sant bu baax rek ñi fi teew te fas yéene waxtaane liggéey bi xam naa bu ñu ji ba ci biir ñi ci kilifa yi ci war a wax danañ ci wax ñu bokk ci comité organisation bi danañ ci wax waaye li ci am solo rek mooy màggal bi day ndigalu Serigne Touba liñ ci def lépp itam roy Serigne Touba lañ koy def ndax sëriñ bi ci njaarim gii ñu nekk tey di ko fi defee fii la ko jëkk woote sëñ bu Bousso xam ngeen ne gàtt ba ba ci sëñ bi njëkk rey moom la ko sëriñ bi moo ko joxoon sëriñ bi àddina ak na ko sëriñ bi seddiloo ca at moom wala ma ca topp sëñ Balla Fally Dieng la sëriñ bi jox ndigal ne ko la wax ñëpp nañ la ko dugal kon lu ñu ciy def rek roy ndigalu sëñ Tuubaa la sëriñ bi fonkoon ko lool ni ma ko waxee woon daaw saa su ma saan agsi fu ne lañuy defee ay teraanga andi ko bu agsee bu ñu sëlmalee tisbaar sëriñ bi tiim ko ñu séddale ko ci dëkk bi yëpp ñoo xam ne bis bi agsee na ndax màggal gi bisu ndam la bisu feet la bisu victoire la la suñu kilifa bu baax nga Cheikh Abdou Ahad Mbacké daa wax lu mat di fàttali la mooy suñu bisu feet indépendance boo ko waxee nag day nuru baat bu rëy ndax réew mi dañu ko seqe ñëpp waaye màggal gi bu amutoon duñ jot suñu bopp ni ne ko sëñ Moussa ko waxee bu demutoon wolof nasaraanu te ko ñëpp dem dem sa wara kon màggal gi mooy suñu bisu fête indépendance ci lañu jot suñu bopp moo tax lislaam mën a tasaaroo ci Sénégal bañ na ko ba bi sëriñ bi ñibbisee sax ci la ndaje ji diine yëpp tàmbali kon wane na ne sëriñ Touba bañ ko yóbbu bu dellusiwutoon fa la lislaam di fay kon màggal gi ci la Sénégal jot seen bopp kon tawféex ji mooy dem na ba ñëpp maase jàppee ko seen yëf ma ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa waaye mboolem ku di jullit màggal gi sa alali boppam ko def te Sëriñ Tuubaa loolu la ko yéene ndax laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi te Sëriñ Tuubaa loolu moo li jiitoon ci woote mooy jullit yëpp nekk dana kon nag alhamdulilahi rabbil alamin kon nag ñu fas yéene dugg ci jàmm ni ñu ko daa waajale rek fas nañ ko yéenee def yokk ko waaye du wàññi ko ndax mbirum sëñ Tuubaa kulliyati moo ajisatun te axar lu mujj rek day gàccee la weesu ni ñu ko baaxoo defee rek bu ñu àggee ca première safar ba ba sëriñ bi wooteel ko boppam njàngum alxuraan bi ak xasiri bi daal day daal di tàmbali ba àgg ca mag am na benn musaabaxa xuraaniya boo xam ne ñu jàmbaare ñoo am mu mubaadara bi ñu ngi koy tàmbalee ci bu safar duggee jeexale ko ci rabia safar rabia safar xam ngeen ne sëriñ bi tudd na ko kon loolu lu am solo ndax sëriñ Tuubaa lu koy defee ak alxuraan ci war a jiitu ci wàllu comité organisation bi itam li nga xam ne fas nañ ko yéen def mboolem luñ daa def soppiwuñ ci dara lépp dañ ko yokk mboolem conférence yi nga xam ne commission culture communication bi suñu Abdoul Ahad Mbacké jiite daana ko def soppiwuñ ci dara waa daayira Rawdu Rayaahin nga xam ne ñoo jiite wàllu culture lañ daa def mboolem conférence yi ñuy def ci penc yëpp danañ ko def te mu ci àggee bu ñu amul lenn ngant wala ndigalu sëñ bi dag ñu yëpp danañ ko fekk incha allah bu bu mënta nekkin nag ku fa teew rek ñoo xam ne moo fa teewul sëñ bi kon loolu dara soppiku ci mboolem programme yi ñu daa def ren incha allah fas yéene wéy lépp. li nga xam ne danañ ko ci dolli ren rek mooy benn ndaje diine bu mag boo xam ne ndaje international lay doon ndaje mi danañ ci invité fukki réew ak juróom Sénégal doo ñëw muy fukki ak juróom benn mboolem continent yi dana am ñu fa jóge te yëpp tànn nañ leen ba noppi ba incha allah dana ñëw te biir Touba lañ ko defee ci résidence Cheikhoul yi mu nekk ndaje mu rëy. moo xam ne gën a wane Serigne Touba rek la ci jublu mi ngi tàmbali la 6 safar nga xam dana fekk màggal gi des ab diir ba nit ñi mën koo dund mën a gën a jànge lu bari ci Serigne Touba ñoom ña ñuy woo ñu ñëw itam buñ dikkee danañ leen wan lan yoon lan mooy yoonu murit jàngal leen lan mooy cosaanu yoon wi ndaje ma nag la ci ëpp mooy yoonu murit ak xam-xam yoonu murit ak diine Touba dëkkub xam-xam. dëkkub diine loolu mooy bi ci biir loolu nag dana am ay waxtaan yu bari ndax ay fan lay doon bokk na ca lañuy ñuy njëkk def la jiitu mooy buñ ñu wàccee danañ jaar Masaalikul Jinaan jër gis ndax liggéey bu rëy la boo xam ne ci sumb yoon yi gën a màgg la bokk bu ñu fa bàyyikoo ko danañ jaar njaarim siyaare kër gu mag xool fi sëriñ bi fi ñu ko mujjee gis ci saahir jaar ci jumaa njaarim xam ne Serigne Touba moo ko taxawal ci biir ak nekkam bu ñu fa jugee ñëw Touba bu ñu nag li njëkk def mooy dem ci jumaa ji siyaare ji Seexul Xadiim fa jugee siyaare ki ko fi nekkal di Cheikh bu Mountakha ndax loolu mooy li jëkk ci li ñu war a def du ñàkk nag yoo fàtte ci biir na chataat yi waaye bu ñu demee ba àgg ca ñi ko war a leer danañ ko leer. buñ fa jigee danay siyaare bi maktabatu Cheikh al mooy daari kaamil ndax foofa xam ngeen ne lu rëy sa fa nekk jeexit Sëriñ Tuubaa ju rëy ndax faw ñu wan leen jàngal leen li nga xam ne yoonu murit am na ko ñu gis ko xam ne waaqoon mal muus la buñ fa jugee danañ dem université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sumb na ko def ca milliards yu bare bari yoo xam ne ku ko tuddoon tey dana jaaxal nit ñi ñoo xam ne yoon bi kon waxtu ne nam sosoo woon ca raabe ca Cheikh Mahmoud Moustapha ba nëgë ni noonu lay wéy ak taalib yee ci jàpp yëpp bu ñu fa jógee itam danañ tànn lenn ci quartier dëkk yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko sanc ci ndigalu sëriñ bokk na ca Gede dëkku suñu bàkki bu ndax xam ngeen li mu représenté joone bokk na ci it danañ dem ndaam visité ko visité la fa ne ci daara ak xam-xam ndax Cheikh Mouhamadou Mourtada Cheikh Mouhamadou Mourtada defe na fa liggéey bu rëy ci biir loolu itam daara yu cosaan yi danañ fa dem xool ko bokk na ci daayira Serigne Son yi bokk na ci daayira Serigne Ibu ak yeneen Serigne Ibu ndax xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko tuxal si woon moo ko fi indi muy jàngal Cheikh Abdoul Ahad ñoom ak Serigne Cheikh siñ Serigne Bakk Madina daara ji ba na gëni tey la gën a dund bokk na ci itam daara Serigne As Jaxate ji ci biir jumaa ji nga xam ne Cheikh du Fadil moo ko sampoo mu ne ci biir jumaa ji ndax Serigne Touba dafa waxoon ne wa ja'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikri wa tafahumi bokk na ci barab yi nga xam danañ ko ziyaare mooy xisbu tarxiya ndax xisbu tarxiya alali Serigne Touba la te ku fa ku fa dem danga nga xam li nga xam ne yoon mu réalisé bokk na ci réalisation yi danañ leen wan raay bi ndax raay bi ñu xam condition yi ko liggéey ak hôpital Matlaboul Fawzayni bi nga xam ne murid yoo ko tabax ci seen alal te loolu bariwul ci histoire fu mu am li ñoo ak saxaafa al muridiyya culture murid murid dañoo am seen culture bopp ndax gis nañ ne exposé yi gën a màgg ci ci ci ci àdduna tey boo fa demee da fekk murid yi di soli bàyyilaat di takki maxtu ngir ñàkk composé rek si gisuñ Tuubaa def ci ñoom loolu itam culture murid dafa bari danañ leen gën a wan lii culture yoonu murid nga xam ne rëyuñ ko fenn te day mel ni fii rek la am bokk na ci loola kaamil yi ñuy bind ci loxo tey boo xooloon Tuubaa liñ fi bind ci kaamil ci loxo kenn xamul lu mu loolu itam daañu leen kon ñu xool gis ko xam ni mu demee bokk na ci li ñu leen bëgg a wan itam mooy lang risque yi nga xam ne làngooru risque na ko te am kilifa yu baax yu ci liggéey liggéey bu rëy ku mel ne sëñ Mbay Jaxate sëñ Babacar Jaxate sëñ Moussa sëñ Mor Kayre Seex Sàmb Jaar Mbay ak ñeneen ñuy demee ba ci nëgë ni ñi nga xam ne ñu ngi taali ci wàllu wolof gën la dëgëral loolu kon loolu bokkande na ci ñàkkut nag yoo fàtte ndax day lu gudd te jataay bi lay jut loolu waaye kon ñi ngi ubbee loolu di nuyu rek ñi nga xam ne ñoo fi teew tàmbalee nuyoo bi ci gouverneur bi ma ko waxoon di ko yóbbanteem nuyoo ci kilifaam yi fi teew yi ko fi teew yi mu fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'Intérieur Antoine Diome nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu ci yoon wi di taalibu sëriñ bi taalibe bu yàgg nga xam ne ñu fi dëkk ñëpp xam nañ ko di di ko yóbbanteem yooyu ci président de la république Macky Sall moom mi nga xam ne liñ ciy def ni ndigal lañ koy def te lam ca war a taxaw it lam ca war lépp def na ko ca kon ci tuur sëriñ bi ñu leen di sant di leen gërëm di tënk tuuti rek ci waajtaayu màggat yi ndax yi ci ëpp solo am na ci yoo xam ne ren. teel gi ñu teel a waajoon gi xaw nañu ci dimbali kon yenn yi ak cant lay doon yi ci reset ak ñaax lay doon ndax ñu gën a góorgóorlu cant gi la ci jiitu mooy ren ñeenti forage bën nañ ko Tuuba ñetti forage la lañ programme ak benn boo xam ne man mii lañ ko mayoon ma war ko yóbbu ca sama sanj ba ca xisul abraar yàlla def oto hôpital Matlaboul Fawzayni am jafe-jafe ndox te xam ngeen ne procédure état day yàgg maa ngi leen nañ bàyyi sama bos yóbbu ko foofa boobu bën nañ ko te wax nañ ne bokk na ci forage yi ëpp ci dëkk bi dana ëpp hôpital ba kon dana dugg ci biir réseau bi beneen ba ci des it na lañ ko bënn moom itam dañ koy connecté ak réseau bi mu dugg beneen ba ci des it dañoo gisoon ne jafe-jafe yi li ci gënoon a metti mooy diggante daarul xudus daarul minan xaaxira ak sancaan yi rawatina fu mel ne boobureel ndax dafa am ginnaaw jàpp ay kërña ak daaru rahmaan ak ba ca kaw ba ca ndaamaatu moo tax bi loolu amee ba sëriñ bi joxe ndigal euh, Sëriñ Ahmadu Muxtaar tam ñu koy santaat foofu ndax def na fi ci taxawaay bu mat ndax moo joxe ndigal joxe benn pàkk ci biir Darou Khoudoss ñu bënn fa forage ba ngir forage bi bu noppee ñee naa leen teewa yi nga xam ne état bi joxe na ko mu ëpp trent kilomètres li ci gën a nekk priorité mooy nañ fexe ba mu dugg ci biir Darou Khoudoss jaar kër Serigne Souhaïbou ak si biir pénc ma dem Darou Minam jàll xayra ba fa mën a jàll mu continuer dem Touba mosquée bu ko defee loolu xëy na bu duggee ci réseau bi dana ci mën a indi soppiku. beneen ba ca des mooy bu ngaabu bi bi ci des mooy boobu ren moom itam noonu lañ koy xëcc ci yëpp daje li indi li am jafe-jafe rek mooy wàllu réseau bi réseau bi ñëpp xam nañ fi mu toll li ci yàqu dafa bari ndax bi ñuy wax ne 40 pour cent ci ndox bi day duggaat ci biir suuf si loolu yàgg na bokk na ci li indi jafe-jafe nab bi waaye loolu itam sëriñ bi joxoon waxoon na ci ak président ba dox nañ ci ay jéego yu bari étude bi. li war a jëlee ndox mi Touba boppam indi ko ba Touba étude ba noppi la li ci des ak mooy étude réseau bi nga xam ne moo ne biir Touba te ñoom ña nga ca xëy na mën naa am balaa yàgg biir ay weer wala ñaari weer ci ni ñu ko waxe woon ci lañ ca nañ ko waxee jox nañ ko daal ña ko war a liggéey du ma dugg ci dat yi rek loolu képp ci des bu noppee ñu xam ne li koy liggéey nangam la bu boobaa nag moom da ko njëbal sëñ bi sëriñ bi nag mooy xam ba xam. da koy woote taalibe Sëriñ Tuubaa yi def ko wala day bàyyi nguur gi def ko waaye bu noppee ñoom ba jëbbal ko ko daal diirlu ko ci lu lu lu mu ci dogal rek ñu xam ne mooy mooy na mu war a demee waaye lañ ca waroon def ñoom def nañ ko ba ca des it doonoon bu jaaxal mooy nab bi wax naa ko ba ci bi sëriñ bi yónnee ci moom def nañ ci yitte moo ndax lu ma ñetti at wala ñeent waxoon naa leen leneen. assainissement Touba de dara jiituwu ko ci li war a def ndax màgget gi biir bu gàtt naa dugg ci nawet fii may wax ak yow nii màggat gi ci jatul wax set la ne wax set na xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkee ni mu baaxoo demee ni la demee dëkk bi dana fees kon loolu problème bu rëy la def nañ ci yitte état bi génne 23 milliards yu jëm ci assainissement bi boole ko nab bi nab bi moom tàmbali nañ ko. forage su bari tàmbali na di pomper muy dem ci réseau ba di dem ba am na yu bari yu tàmbalee wàcc am na kër yoo xam ne seen ndox kër yi génnoon nañ seen borom génnoon nañ ca ña ngay dugalaat seen i bagage kon sëñ bi yittee ñi rek ay armeel ya demoon na ba am na ñoo xam ne seen i waajur mënatuñ fa àgg nag ndox wàccoon na damaa xamaatu bi mu tawaatee nag waaye wàccoon na kon loolu jéego la te gis naa forage sa war a doon fukk ak benn lañ ci defaragul sii si moo fonctionné gul waaye lu bari jot naa wàcc ba wax na ne wàcceegu na lu bët amet kon foofu moom mel na ne yàlla def na ci tawfeex ba incha allah dana gën a wàññi lu bari ci jafe-jafe assainissement bi it chinois yi yi nga xam ne président Abdoulaye bi moo leen indi ci dëkk bi ñoo yor liggéey ba kon loolu itam dañ ci soññ ñu yor assainissement bi ñu taxawu leen fexe ba. lu ñu mën a gën a gaaw fii ak màggal gi effort yu ñu mën a def rek fexe ba ndox mu wàññi ndax màgget kat bu nekkee ci biir wax sax dana jafe ndax mbedd yëpp amut assainissement am na ci mbedd suuf yu bari te nit ci mbedd suuf yi lañ daa mbedd suuf yi nag bu fekkee yëpp dafa taa dana gën a jafe kon lu ñu gën a mën a góor góorlu fexe ba nit ñi conditions yi nekkoon daaw ci lu metti mu bañ a amaat nañ ci góorgóorlu doonte la rek jéego bu rëy am na ci ren ndax 30 bi xam ngeen ne lu itteeloon sëñ bi la yàlla def na daanaka àgg na yaakaar naa bu fekkee des na it bëri xëy na benn point moo ci desoon te foofa dañ faa war def benn centre bu mag boo xam ne la muy jël dafa bari te déggoowu ñoo ne ña ñamoom foofu waaye la ci des lépp wër na dëkk bi te loolu dana wàññi bu bari beneen ba ceres it ak cant lay doon ndax sëriñ bi itteem jëpp mooy Touba amul soxlay boppam maa ngi fàttaliku talibé ñu koy defal ci Touba Mboul ca jamonoy Cheikh Sidi Moukhtar laa xamoon farata ji sëñ bi sàkku ma dox ko ci président ba yàlla def mu nangu ko moo yeneen i tëli la woon waaye xam nga police di état ni muy guddee. ba bi muy bi muy sotti bi ñu koy bi ñu koy accordé sax boobu Cheikh Sidi Mokhtar rek waaye bi ñu koy tàmbali xëy na daaw la diggante daaw ren lañ ko tàmbali liggéey ba sori na waaye li ci yéeme mooy ba président ñëwee di ko wax sëñ bi sëñ bi da ko ne bu fekkoon danaa am soxla ne ma ne loolu jenn yitte jooju daal waaye nag amu yitte bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko defuti lu wàññi dara li ma gën a daal mooy lu ñu def nañ ko def biir Touba kon kooku tubaar rek ko itteel ci biir loolu itam. yi nga xam ne ñaan na ko ay tëli yoo xam ne ñu ngi koy jot def ci biir Touba kon am na ci yoo xam ne sotti na te itteeloon na sëñ bi ndax yónni na ma ne ma damay day soxla yu ma ñor ndax barab bu ci na nam demee bu ma sañoon ñu tëlit ma ndax dëkk bépp lañ bëgg tëli waaye xam ne lépp kenn mënoo ko yàlla mi ko mën sax defu ko waaye nag ay priorité day am bokk na ca daarul karim bi nga xam ne ma Massamba moo ko sanc ci ndigalu Serigne Touba moo Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil la boole woon muy tindoo ak ndindi incha allah bu àndee dogalu suñ borom Serigne Cheikh yi ni toog teewal fi Serigne Mamour suba danañ tàmbuli liggéey ba entreprise ba ko war a def jekk na suba danañ tàmbali liggéey ba bu ñaareel ba it mooy yoonu tindoo di tindoo ni ma ko waxee ñoo bokk leen diggante Cheikh Mahoud Moustapha mooy dëkk bi mu njëkk sanc xam ngeen la tax mu bàyyi ci tudd xusnul ma ab da tudd kon tindoo di waxuma la ña fa dëkk waaye bu doon génn kër sax yaayoon ni ñu tëlli ko ndax nam def na fenn waru ko jiitu ba ca desit mooy bi jëm ci Baay Faal yi njabootu maam Cheikh nga ñoom duñ jàmbat duñ laaj duñu wax duñ ñëw ci sëñ bi sax ne ko bëgg nañ nangam joxe addi ak déglu liggéey lañ seq ak bi waaye sëriñ bi nag ci yërmandeem ak xam seen positif seen taxawaay moo tax mu defoon ko yitte ba moom itam sotti ne bu subaa danañ ko tàmbali ak yeneen yi xam ne moo war a xëttale autoroute bi moom agsi ci biir dëkk bi yi nga xam ne nag ñu ngi ci xëy na. ñu ngi ñaan déwén wala déwén jéem mu sotti te ñor na sëñ bi mooy corniche bi nga xam ne moo nekk Touba ni ñu defaree yoonu dindi bi ñu fexe ba corniche bi wër dëkk bi ba ca dolli quoi mooy 120 mètres bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké defoon na ko mu wër Touba gépp loola def ko autoroute bokk na ci yi nga xam ne ñor na sëñ bi kon daal ñu ngi ñaan ci yàlla ci barke Serigne Touba yooyu yëpp. niñ ko diggee te ne ca lépp sottee jàmm te bañ am benn gàllankoor fi may jeexale rek mooy ñaala taalibe yëpp ñu am ak fekke ak kàttan ak wér ba àgg ci ak jàmm ba li ci Sëñ Tuubaa digle ñu mën koo defe nu kawe seen njort te xam ne incha allah sëñ bi ci yërmandeem ren ji màggal gi yaatal na ko ba nga xam ne quartier yu sori yi nga xam ne ñooy sancaan yi bëgg nañ fenn fu ci ne ñu gën a dund màggal gi ndax xam na ne ña fa ëpp ca ña dëkk ñu néew doole lañ la Serigne woo xam ne Touba ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi loolaa leen fi indi am na ci ñoo xam ne ci tumuraanke gu métti lañ nekk moo tax ci ren ji incha allah ci commission culture ak communication benn na ci benn bànqaas boo xam ne waa Hizbut Tarqiyyah danañ ko coordonné mu aju ci commission boobu ñu fexe ba def ay baas lu bari ci quartier yi di fa yëkkati alxuraan ji xasida yi ni ko sëriñ bëgg waaye di fa def teraanga ba ñuy néew doole te mënaluñ seen bopp teraanga ñu koy defar seen bopp ba nga xam ne kenn ci fa gën a sore ak kenn ci biir dëkk bi dana bokk ci biir màgg noonu daal ko sëriñ bi bu baax rek ñëpp ñu dugg ci jàmm te xam ne ni ma ko waxee rek ndégalu sëriñ Touba ndax sëñ bee ko daa defal boppam bi mu ñibbisee Touba itam as Cheikh Mouhamadou Moustapha wayal liggéey ba ne ko Serigne Touba daa defee ak Cheikh Mahamadou Fadil nag moo ko wote Touba indi ko li li ñuy wax ijtihaad la ngir bëgg ñëpp jariñ ci ni mu ko waxee ci làmb ñu boppam ba mu bàyyi ko fi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wayal liggéey ba ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacké li muy gàtt gàtt danaa wax ne si Maodo Moussa moo ko wax ne ko sa baay de nee na ma lu baax lu baax. baaxe na fu ne waaye sakkane ne Tuubaa mu daane moo tax lépp lu may def rek mooy koor di kori di tabaski di màggal di gàmm koy defe Tuubaa mu bàyyi ko fi ak Cheikh Saliou Mbacké ñëw lam ci wax mu ngi ci bànn yi ñëpp koy digg Serigne Touba nee ñaar fu ñu kii di ko dundal kii di ko ñàkk dundal waxtu wu ne ka koy dundal di gis lu muy tiime ka ca des ba mu fi bàyyi ko ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw kuréel gii di saytu màggal gi te yàlla def ma nekk ku xeebu ànd kook ñoom jiitewuma ko sa ndax baatu président comité organisation moom moo soxla kenn dootuma ko wooyee moom bu mënta ñàkk rek jëwriñ doy naa ndax yoon wi moom ni ni mu doxee rek moo sa yoon lu àdduna soppi ko soppi ko loolu duñ ko soppi moo sa yoon daal jëwriñ ji ñu koy wax te bañ a wax président comité organisation bi bu dee li ci des mën naa wéy ni mu daa doxee ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw yàlla suñu borom dolli ay leeram dolli seeni leer moom a ñëw gën a dëgëral liggéey bi gën koo sàmm ba mu agsi fii di ñaan la ak Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne moo fi nekk te yàlla def ba ñu taxawal kuréel gi kilifa yu tedd yi ma àndal yépp ku ci ne moor woo jox leen di gën ne la ànd leen mu ndax bu ma soñoon mu dem kon dem gëm bëggoon ma ne liggéey bi ñu ngi koy am ba dëgër yi teg ca it ne mooy boroom ndigal li ba fi ne dama koy kon yàlla na fi yàgg te ànd ak liggéey bi xam naa wax ji gudd na sax waaye nag màggal gertoon loolu ñu ngi ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh